Salam alaikum, euh, bienvenue au studio fi euh, studio Konate, tey j'ai ma invité quatre doyens de la musique sénégalaise on parle toujours de la musique sénégalaise et tey mom dama ci sawar l'ol invité l'en, suis content ci lool émission de grand yi me ma reetaan me ba sonne sonn <laughs> fi mais sinon <laughs> euh, quatre doyens de la musique sénégalaise vraiment nous, def fii loo musique sénégalaise nous war tey nous leen des invité ñuy les nouveaux chanteurs des les jeunes musiciens vraiment après émission faut que ngeen déglu seeni cadeau parce que c'est important parole à la musique bienvenue aux quatre doyens maa ngi d'abord euh, sama grand Thierno grand maa ngi lay fay waaw euh, teg ci grand Jimmy Mbaye non mom, mom, d'habitude dama koy wax sax et euh, eh, boy Jimmy ça va. grand papi ça va ñu ngi sant yàlla bah bah ça va bien mais di di fel aussi sama grand Ibou Cissé nga xam ne tàmm nu ko gis sax ci émission yi mais tay mom, dama ko forcer rek xëcc ko. non ah, yo laa yow yaa ko mën maa lay nuyu Papis yow yaa mën loolu. parce que danoo yag dal voilà danoo yàgg. gaa toute une histoire voilà di di di di di kii nak di kontaan ci sama grand bi nga xamné mom bon majeure partie des gens ça se disent que ñun euh, ño bokk quoi parce que de nuroo mais mom bugguko parce que <laughs> bu ñu waxé ni dama nuroog dembel dembel ne ma non booy nuroowunu quoi mais <laughs> sinon damay rafetlu vraiment sa présence ci émission bi nga xamné parole à la musique on va discuter un petit paysage musical au Sénégal

Ah, di contane ci invitation bi ñu invité ni man ak kàngam yi ak ay kangam la sen sen appellation boobu la ah, mo am fierté bok ak ñom plateau bi vraiment xamna ni di ci sakku su ma fi jógee gën a xam-xam mais bon euh, li nga wax ni da ngay xaw ndoog man makoy wé bañumako seulement damay def précision souvent da nga ma naan dembel da ngay ndoog man man la non comme mala mak yow yaay ndoog <laughs> man waaw mais yow Yo, gentleman <laughs> tu es mon frère. oui <laughs> mais vraiment je di le grand parce que c'est un plaisir la vraiment nous avons talk les problèmes qui se trouvent dans la musique parce que pas mal de gens vraiment la musique sénégalaise euh, a un problème Il y problème ci euh, musique ou la musique c'est vrai que <clears throat> quand on dit musique dembe, c'est vraiment nostalgique. Quand on dit musique <clears throat> vraiment c'est un problème parce que on, voit que nous nu ben morceau un morceau album les gens n'ont plus le temps d'écouter c'est quoi le problème peut-être que le fait que es non <clears throat> non composition nos chansons chanson dafa mélodie parce que moi je remarque qu'on a beaucoup de rythmes maintenant dans la musique sénégalaise alors que la musique d'hier les rythmes n'étaient pas au devant alors bon damay njëkkee ci grand tierno <clears throat> vraiment musique u et ak musique u vraiment quelle est la différence entre manbox si sama gis-gis à peu près mais yow baax vraiment nga wax de ci musique de ak musique Tay. quelle est la différence. waaw c'est un plaisir euh, ma ñëw ñu suis dama de sax parce que dañu gëjë a ñun ñi Yalla def na ñu dajé wara waxtaan ci affaire musique bi c'est très important c'est dans le sens que mën joxé conseil aussi parce que ñun dans le temps c'était difficile dafa jafé woon boo bëggee jouer di nga c'est la croix et la bannière da nga daw ba sonn balaa ngay am dara amoon na période yu nga xam ne sax da ngay jouer ba pare doo am dara boo naanee sa café ou lait ak sa pain beurre dem ñibbi tu es content mais léegi loolu amatul ce qu'il faudrait ce qu'il faut beaucoup de sérieux daal ci liggéey bi xale yi def néew ma liggéeyuñu de maa ngi remarqué lu bari lu ñuy def ci lu baax mais am na ko war tegee ba nga xam ne vraiment dinañ dana jëm kanam daal dafa am benn remarque bu mu def par rapport à la nouvelle musique là que les jeunes font on est un peu euh, en phase avec euh, la musique nigériane dañuy xaw a xëcc tuuti côté boobu ay life xam nga c'est une très ancienne musique boo xam ne bii ñoom dañ ko exploiter ah mais am na nu ko daan joué boo xam ne bi mais melul comme niñ ñu koy joué léegi mais dañ ko amélioré amélioré nañ ko ba nga xam ne ñoom ñu ngi ci sur un bon chemin macha allah. les jeunes d'aujourd'hui waaw léegi xale yi tey sénégalais yi ñu ngi koy def mais man li ma bëggoon ba tey baax na de. Mhm. parce que la musique elle est universelle. kenn ku ci nekk fu ne mën nga fa jaare pour def dara. Mhm. du dëgg mais li ñu moom muy musique traditionnelle bi fii mën nañ ko exploiter de sorte que vraiment dinañ am aura comme ni ñuy remarqué mbalax bi ni ko ñu mhm. tu mais grand Jimmy dama doon waxtaan ak euh, grand Omar hmm. bon vision bi nga les chanteurs les chanteurs ñii nga hmm. vision bi ute na torop vision xale yi léegi. Mhm. parce que mi ngi may euh, fàttaliku jox ma benn anecdote nee ma mais Papis tu sais que man début yi nga xam ne dama daan jouer ak euh, ku mel ni Youssou Ndour moom par exemple dafa daan am ay concert en Europe ñu fay ko loo xam ne sax demeewul noonu mais mu jël ko pour fay ay musiciens tegoon ay musiciens fu am importance ba nga xamné mom du ci won gagner dara sax. Mhm. mais dafa doon dem voyager. Mhm. fay ay musiciens teg leen dans de bonnes conditions. Mhm. maintenant tel n'est plus le cas parce que on voit bien que depuis Super Étoile def na ñaata ñaata année. presque 40 presque 40 ans. presque 40 ans et tu vois que depuis 40 ans ba légui Super Étoile mi ngi melni au premier jour. Mhm. tu vois donc lolu dafa am ben ak état d'esprit bi nga xamné ne mhm. mais lan ngay conseiller nga nañu am nañu place nu mais lan nga ni conseiller parce que soit ñu def carrière wala ñu vraiment design parce que j'ai l'impression que ñoom solo bi nañu gën a amal importance alors que lu ménage ni va Ndour commencer muy commencé ay matériel la wut ou des relations mm-hmm. donc lolo a besoin un peu nga conseil génie qui ci sens boobu waaw euh, Papis je te remercie beaucoup pour l'invitation euh, mais dans leur ben affaire boo moi. ne moom li nga ne c'est c'est très simple et il faut aller droit vers le truc euh, Youssou dañ daan nekk ay mu am ay topp réglé ay tournée ñu war ko par exemple dem tournée pendant deux mois xam nga deux mois ku ko yor groupe ça coûte très cher en Europe ou bien aux États-Unis mais Youssou bu ñu dikkee dina lijjanti ba fay ñu yii dafa daan dem lépp banque ñu lebal ko mu ñëw fay parce que am na leen lu doon dafa am leneen lu mu doon parce que loo bëgg gis njëriñ li da nga ciy investir. dëgg la waaw xoolul woon tey tey tey naa joué tey tey am xaalis tey tey loolu dafa daan lépp xaalis dugal ko ci tournée buñ dikkee ñëpp am moom du am moo tax bu toogee yàlla dimbali ko ba mu am. bu ko kenn daf ko mérité daf ko mérité. Mhm. ensuite. Mhm. groupe ce n'est pas que le chanteur. exact. fii booyi fii mhm. ku ci ne yaakaar nga ni fii yow yaay star boo xam ne bu yàlla wàccoon sa kër lay daal parce que dem nga bay ba ba ba peese nga sa bopp même ñi nga xam ne ñooy toog dina defal musique sax da nga leen di xeeb parce que yow la sa tur génn man loolu woykat ma gis nga def ko dama la yërëm parce que xam naa doo sori parce que yàlla dafa bëgg ku ku ku ku ku kuy respecté ak

grand Thierno moom sax su weer moom moom bu moom bu sax see ci biir koñ bi moom waa ko bi dañuy génn. non gars yi dañuy yow quoi xam nga donc grand bi moom xanaa xanaa mu yor benn kii bu ndaw boo xam dafay dugal sax bi rek quoi di kii quoi. non parce que. Ah? woor ba woor ba woor ba ndogu moom war a jàpp ay mbir moom. da day métti non day métti quoi. donc donc moi je dis que. Uh-huh. musicien Sénégal li ñu war a njëkk a def mooy góorgóorlu comme le grand Thierno wax fii affaire kii euh, affaire ñett yi ñu jéem a reprendre ça les avance en rien. du leen yokkal dara ñoom ñoom ngay yokkal man par exemple bu ma toogee ñu naan Djily euh, Mbaye day woy comme Youssou Ndour mais attends Djily Mbaye soxlañ ko bu fekkee kuy woy comme Youssou Ndour la nañ woy Youssou Ndour moom ci moom <laughs> non dañu xam te directement wallaay directement da ngay dem directement ngoo ko nit ki da nga war a liggéey am sa cachet bopp bu fekkee woykat nga sa musiciens yi ngiy liggéeyal respecte leen fonk leen parce que ginnaaw yàlla yonent bi lépp loo am ci ñoom la

loolu ça a beaucoup forgé ci ci euh, ci ci ci entente bi ne nga xam ne bu bu avant mu wax sax gars yi xam nañ lu bu taxaw ah, de ci rek parce que dañuy comprendre te c'est important ci musique cohésion sociale cohésion gis nit déjà mhm. non non من اللي دفع بالنهني بس كم فيها كده ما يجي ما يرسم ما قتار دين بيني قتار خفيف منا نو ما هدارو كم بلايك بوجن تبيت ما كو جن نا نا كو نو ما نيجي تقولي نه بس كم خالي أندول الموسيقى دفع نك لو خم نلوي جوجي تخلى ورا دما تخل دفع كل يجوجي تخل بريفتو بعدين خل دكتور سوار دقيلا ما لولو moy conseil yi nga xamne vraiment on n'est pas là vraiment pour faire euh, Euh, di di di euh, euh, artistes chanteurs mais c'est des conseils yo xamné ay mag ñoo c'est des professionnels bon en parlant de professionnels Grand Ibou lan comportement un musicien professionnel dans un orchestre et au studio et partout lan comportement parce que de nos jours on voit vraiment un désordre comme c'est pas possible des scènes. Et vraiment, c'est désolant parce que j'ai l'impression que les musiciens xamuñu seen place lan ngay conseiller jeunes musiciens yi vraiment ci professionnalisme nan la ñu war a comporter wu. remercier comme tout le monde ci li nga def nii lu am solo la. Mhm. on peut le faire ensemble facilement. facilement da nga woote rek ñu

Euh, ci comportement. respect la respect la. nit lépp looy def jox ko cër bu fekkee da nga toog ne da ngay jouer clavier jox ko cër bu fekkee ne dama séq copis papis ñu war a gisee suba joxal cër wax jooju engagement boobu jox ko cër te kenn doful nit ñëpp ay nit nit da ngay def da ngay def li la war wala nga def li la neex waaw. waaw léegi léegi nag quand tu quand soo duggee ci benn studio dañ lay laaj nga jouer que tu donnes ton idée wala su fekkee ne am na idée ñu ne la defal ñu Lors loolu li la koy may beaucoup de travail chez toi ba nit ñi suñu nekk diw dañ ko soxla soo ñëwee li ñu la soxlaa nga def ko boobu c'est un premier D'ici là, des moi la sociabilité nga nekk ak nit ñi jox leen respect ba suñuy nekk ak yow obéit, yoon dañuy amaat envie nekkaat ak yow beneen yoon ça c'est important c'était une première fois une première fois une deuxième fois une troisième fois moi un succès première fois bi mais du première fois bi en tant que tel and nak papis def nañu benn affaire neex non bala ñu naan neex na ngeen def ko defaat ko defaat ko ba ñëpp dégg ko ah lool nak likoy koy maye moom mooy li jimi doon wax la cohésion sociale le respect xam nga fonk sa instrument fonk musique bi ba pare ak jang dal parce que lépp dañu ko jang musique géej la li nga ma laaj nii c'est mille questions mille questions c'est mille questions dans une scène

Euh, euh, tey respect respect quoi ba pare xam nga nit su ngeen bokkee passion fay dina la ba feeñ ci qualité li ngeen di liggéey passion bi su ngeen ko bokkee jiital ko euh, mom moy tax duñ nekk papis moy chef papis su waxul ñëpp bay wala dembel mon chef su waxul ñëpp bay en fait tu fais travailler tout le monde ku nekk dang koy jox gëddëm ngeen bokk affaire bi loolu munu tricherie amu si munu leen def lu bon dëgg la quand vous êtes ensemble vous pouvez pas faire mal mu mun leen def lu baaxul daal il faut ngeen def loo xam ne ku ku ku mu neexul sax. di nga ko mhm. respecté. da ngeen ne lii de liggéey bu ñu bu ñu jox àq la waaw loolu li koy may moom mooy cohésion. Mhm. Ah, moom mooy moom mooy respect suñu biir. xam nga ba pare bokk passion ba jiital. Mhm. jox cër li ñuy def mais munoo nekk di jouer. di di jéem a defar benn morceau pour xool nan gars nan lañ ci xalaat yow yaa ngi xalaat ñaata laa ciy gagné xam nga loolu moom mooy yow daanu nga te dema ko hein. xam nga léegi léegi démb nag loolu te fi amoon on jouait par passion lu si waaye am daf la si fekk c'est mais est-ce que da ngeen daan ñëw à l'heure tu sais bu may bu may wax respect bi ak euh, professionnalisme da ngay gis musicien yi koo ci jox heure il ne vient plus à l'heure

su nekkee groupe pour Ligue bi gaaw di naan Papis mooy diriger Comme Papis su waxee bu la jàpp ne Papis Papis moo war a mujjee comme par exemple wax yi njëkkante yeeg si bi Papis mom moy mag mom mo war a mujjee ñëw si scène bi yéen bi teg teel leen dem ngeen vérifier affaire yi xol nu mu demee après mom dina ñëw peut-être mom mi ngi wax leneen xam nga loolu cër la rôle la rôle la. rôle la rôle la quoi Youssou nous on peut l'attendre des heures parce que xam nañ ne que ne ci caaxaan ci ki xam ko xam ji ko moko gën xam nga xam nga amul ñu naan Papis ak ni toog xam nga ne Papis su fi nekkul c'est juste pour aller régler li avancer liggéey bi mhm. kon boog rôle am lay def yow defal sa rôle et les et les moutons les vaches sont bien gardées comme on dit quoi après xam nga lépp jaar yoon simple te loolu tamit à la base respect là tardé ci liggéey baaxul ci fenn amul liggéey bu ñu koy toléré Mon soo ko waxee benn peut-être ben jikko la bu ñuy partagé mais daal xam naa ne que bu njëkk ba ni mhm. doon dajale nit ñi

ci discipline ci musicien ak ci professionnalisme mais sinon yow ak euh, tey ji nii dafa am lu bëri loo xam ne lu jaxasoo ci xelu artistes yi auteur compositeur arrangeur c'est un sérieux problème parce que tey woykat yi dañuy am des conflits avec les arrangeurs ou avons un conflit avec euh, les compositeurs bon ma question bi may poser moi maintenant de un batteur ou un percussionniste ou un beatmaker euh, ou un ingénieur de son venir dire que mon arrangeur bon arrangeur là, parce que faut que nous remettrons là encore parce que ni bu ñu génnee raay ci il faut que les gens comprendre un peu parce que un technicien qui ne joue pas d'instrument est-ce qu'il peut être un arrangeur un batteur qui ne joue pas d'instrument est-ce qu'il peut être un arrangeur ou un percussionniste qui ne joue pas clavier ou la guitare est-ce que mën na un arrangeur parce que c'est un problème yow nan ko lan lan merci pour la question Il ngi posé une question compliquée. Hmm. Ah, parce que compliqué parce que n'a pas défini les rôles. et puis bon de qui, tamit suivant mis ci nekk sa ay euh, rôles yi suivant de qui. Euh, parce que Sénégal en matière de répartition des droits le chanteur celui qui a créé le texte d'emblée il a 50% auteur des droits Moi, auteur bon le compositeur celui qui a créé le chanteur ça, il peut dire que m'a créé way bi créé air donc de facto il se trouve il se retrouve compositeur arrangeur bon Papis scolaire, de maintenant c'était une erreur à corriger parce que euh, c'était c'était une disparité pas normale parce que vous faites que... France par exemple vous faites que compositeur mais musique c'est une science on va te dire li compositeur il y a un accord là. Il y a une harmonie ce que nous mënul déterminer mais tu n'es pas compositeur l'air, parce que compositeur tu peux créer l'air sans pour pourtant scientifiquement expliquer quoi. donc ce dama ko man dama ko mus a wax ni que c'est pas normal que chanteur parce que moi, il génne air qu'il est exclusivement compositeur celui qui prend sa guitare ou son clavier il est autant que lui co-compositeur xam nga loolu tamit c'était loolu amul woon fii. amul woon fii da air du coup 75% du coup des doigts revenaient aux chanteurs. xam nga c'est pas normal alors que bu fekkee da nga dem un par exemple mais boo boo ñu amee conflit dañu naan la mais joo eh ben, ok a créé morceau bi mais harmonie c'est quoi. mais ci je parle sous le contrôle de mes grands. 99% mm-hmm. des chanteurs sénégalais ne savent pas jouer d'un instrument ki ne do majeur 7 mi do mineur ré mineur xamu ko. xamu ko. xam ngeen bu baax la donc yow donc eh, la musique nag wax dëgg yàlla à un moment donné c' est une science exacte man créé wu ma ko li ñuy wax marche harmonique bu siisa xam na ko soo jógee do majeur xam nga fan nga ci topp xam nga code de la route bu leer la te chanteurs yi sénégalais yi lu leen wuteele ak chanteurs européens yi ak occidentaux yi de manière générale mooy que ñoom ils ont eu l' influence de l' église ku ki nekk soo commencé way yaa ngi commencé jouer instrument piano mm. donc texture harmonique bi di nga expliquer les notes sensibles avec les tons voisins avec yëpp di nga expliquer parce que da nga jouer donc ils ont une texture vocale beaucoup plus large beaucoup plus musicale parce que nous, dañuy xam loolu mais chanteur Sénégal dafa la ni woyal rek man ma il prend 90% des doigts. mais à part ça quand est arrangeur arrangeur arrangeur xam mm-hmm. arrangeur c'est comme le cuisinier man mun naa indi pour ben ceebu jën les mêmes condiments jox ko cinq personnes ñu ñu ah, ñu togg ko mais mu saf différemment xam li l'arrangeur comme son nom le c'est lui qui arrange le chanteur il peut venir avec sa euh, le chanteur il peut venir avec son texte avec sa mélodie mais il lui appartient à lui de dire bon sur telle partie il faut que def ce serait bien d'avoir introduction bi bon euh, il faut donner qui celui qui donne euh, l'orientation à la musique en général mon monde euh, bon il faut mettre des claviers il faut mettre l'introduction il faut mettre tant de mesures c'est celui qui c'est ça l'arrangeur ah mon dans un autre jargon beaucoup plus européen réalisateur celui qui donne une orientation en général à la musique donc arrangeur tamit arrangeur c'est un truc très compliqué parce que la musique se fait avec des notes. Mhm. Des notes. Donc, un, musicien, un c'est mon avis, hein, c'est très subjectif, mhm. mais tant que tu ne maîtrises pas les gammes, les accords, les modes, les renversements, mais tu ne peux pas être arrangeur. C'est impossible, parce que c'est une science. Parce que vous faites dans une. Je parle sur le contrôle de euh, <laughs> mes grands. Mhm. tu, as un gamme majeure, do majeur mais do majeur ba sii mais c'est pas n'importe comment ngay disposer accords yi soo ko xamul noo koy defee te accords yooyu bu ki nekk am na ay renversement am na ay substitution am na ay mode déterminé yu yu mu nekk mais loolu soo ko xamul mënuloo ko jouer mais xam nga loolu loolu loolu maanaam xam-xam techniquement waaw mais euh, grand Thierno waaw est-ce que selon moom techniquement li mu wax est-ce que un percussionniste bu deful est-ce qu'il peut être un arrangeur ou un ingénieur pour xamné l'instrument instrument est-ce qu'il peut être un arrangeur bon à moins que à moins qu'il apporte une chanson un air à faire arranger lolé moko ci mais sans quoi tu ne peux pas venir comme ça avec ces percussions ne né man arrangeur là c'est pas possible mais boo amee air boo indi gars yi jàpp ci mais de façon comme moom ni mu ko waxee techniquement mënul nekk parce que boo xamul techniquement boo jàngul musique xamoo nu mu demee xamoo accords yi xamoo dara ça ne peut pas aller. mën na nekk arrangeur. d'habitude fii fii dañuy dégg nag. fii d'habitude la wala wala wala kii. lan fii dafay am benn. moo tax moo li ngay wax noonu moo tax musique bi demee nu mu demee nii. waaw mais mais mais grand selon toi quoi mais vraiment xam nga xëy na bu may wax euh, gars yi dañuy foog ne damay damay damay am lu may soxor rek wala lu may hmm. mais il faut ajuster encore vraiment il y a des choses qui sont là nit ñi dañ koy gis te on ne comprend pas da ngay gis sax ben beatmaker boo xam mais deful ben ben amul amul ben bagage euh, musical xamul xam joué quoi. instrument voilà mooy Moi ba paré waaw bu paré bon né arrangeur la. mooy li loolu mooy li doguma techniquement nek na wala comme comme li Dembel wax légui wa techniquement il faut connaître il faut apprendre sans quoi tu ne peux pas aller tu ne peux pas c'est pas possible Wow. Ben, ben, possibilité bon may wax c'est parce que da ngay am ben air bo xamné ne ko chanter et puis que tu sois aidé par un musicien, comme, un, compositeur, comme, un, arrangeur qui puisse t'aider à faire mm. ton, truc. Sans quoi, tu ne peux pas. Parce que, bon, moi un bon sens quand sens mën a par exemple avec une percussion. il faut que pour aider. ça Pour que aider en fait. bon. comprendre. mais mais euh, je sais que par exemple en Europe un un percussionniste avec batteurs batterie, ils lisent la musique. Mm-hmm ñooñu ils peuvent ils peuvent composer leur propre musique xam nga ñu dafa am discipline dañ koy bind et tout mais fii c'est pas le cas malheureusement. man man de li ma si xalaat Thierno moom mooy que ne musique moom affaire cote la rek. waaw tu sais xam nga musique balaa ñu naan bi réussir na. Hmm. wala bi reconnaître nañ ko. day fekk mu nekk si cote standard yi. waaw ah, léegi cote standard yi nag pour nga nekk si pour nga xam ne soo tëggee fii soo demee Cuba ñu ne kii li muy def li muy li muy tëgg neex na jaar na yoon c'est c'est respectable. Hmm. xam nga nga dem Argentine même chose nga dem Asie même chose da ngay jaar ci code yi code pour nga jaar ci nak da ngay jang musique So jàngee musique di nga mën jouer instrument un arrangeur di nga xam lan moy suite harmonique di nga xam lan moy dal moo xam percussionniste mo xam tasukat nga ça dépend rek bu fekké né Sénégal ngay teugul, mo nga défar ses bac, teuguko. So soo demee droiteur yow nañ koy fay waaw yaa ko moom Bac yi fecc bu bess hmm. bi ñuy wax ni ak ak teug mu bess bi mais lolu c'est de la création c'est de l'arrangement hmm. mais fi la yam quand bu fekkee na nag ñun ñun xamuñu luy suñu problème ñun dañu bëgg ñun li fu ñu séntu affaire bi moo sore te dana dañ ko commencé woon di ko jege. xam nga ak fii li li fii Ismaël Lo def. Hmm. Youssou Ndour def ko fii baba mal def ko fii ak grand yëpp quoi xam nga ils ont dafa am benn moment boo xam ne ci àdduna bi nit ñi dañ leen jël xam nga soo ne world music Sénégal nga ñëw. Touré Kunda xalam xam nga affaire bi am aura loolu moo jékki-jékki jeex léegi ñun bi ñuy ñëw loolu loolu mooy suñu problème ñun.

mais ça n'enlève en rien dindiwul dara ci sunu valeur ñun musicien parce que métier la lu xew li xewi nak mom ku mu neex nga dugg ci mais ku bëgg métier bo xamné dans 40 ans ba ba ngay dund reconnaître dans ton métier da ngay jang ne métier nga koy def bien ba paré nga am ay challenge fi aduna bi da tassé nga fay mëna dem ah, ay code nga nekk ci code yi la code nga nekk ci musique bi nga jàng moo la koy may nga xam lan mooy xam nga moo xam percussionniste moo xam beatmaker nga moo xam instrumentiste nga wala woykat nga il faut nga am xam-xam xam nag moom mooy tax ñu nekk lii mooy sa métier mais diw moo xewoon bu fekkee ne beatmaker ngay wax il y trois ans am na booy bi doon toj ci biir rab bi kenn déggutu ko réer na dafa xewoon rek xam nga parce que amul métier pour rab c'est c'est sous-métiers du du métier quoi loolu tax man dérangé wu ma quoi man dama ko jàppee rek ne àdduna buy dox la. Mhm. nit ñi yàkkamti. kenn dootu fi toog di déglu série yi neex na ma série xam nga wala mélodie bu neex gars yi dañuy xam nga àdduna bi moo doxee noonu ba nga xam ne mais dindiwul dara si no mérite bi suñu métier am. parce que suñu toogee fii on sème on peut réaliser des choses yoo xam ne mun nañ dem challenge bi ba Japon. Mmh. xam nga lu ma wax dëgg la parce que xam nañu côté.

musique surtout en Afrique on voit vraiment euh, dañuy wax ni musique euh, mbalax dafa xaw compliqué musique mbalax compliqué mais néanmoins très riche on voit des étrangers c'est que euh, de la très riche mais ñun sénégalais tout le temps dañuy dañuy dañuy dingat sunu sunu sunu musique bi daal donc étrangers yi am fi place eh, am bagage musical va pare di jouer de droite à gauche jouer avec beaucoup d'artistes fii mhm. mais comment tu tu vois cette atmosphère. man xam nga pour man lan la. Wolof mhm. dafa wax ben wax ku bay sa and and boo dem fekk borom toog ca te yow boo moytu boo di nga fekk keneen toog mhm. parce que on veut faire de la musique au Sénégal. Mais il faut oser le dire, on le fait mal. En ce moment-ci, pas hier. Actuellement, oui. Actuellement. On le fait très, très mal. Parce que, moi, je me comprendre une musique, tu la veux, tu la veux internationale. Bon xam da ngay jiital percussion yi baa nga jël benn instrument boo xam ni ñun rek ñoo am ben spécificité bu que koy au Sénégal muy marimba man pour moi marimba c'est dafa nekk affaire boo xam dafa nice c'est tellement beau mais li mu yàq ci musique sénégalaise wala mas ko yàq ci tool. <laughs> doy pourquoi. oui parce que c'est un instrument boo xam dafa am beneen utilisation bu ñu ko war a jox. Euh, dafa mel nga jël euh, supposons un morceau Ndiaye Ndiaye Ndiaye jël percussion yi jiital ci kawam ba pay teg benn marimba bu bu bu dérangeant ci kaw. Mm-hmm. on comprend plus le morceau xam nga xam nga dafa am benn benn benn affaire bu may xool kaa dama gis ni boy léegi il cherchent même plus à s'identifier en tant que musicien mm-hmm. par exemple am na façon boo xam man am na benn style marimba boo xam fu ma ko déggee dinaa xam ne kii papis la nga xam ne kii papis la mm-hmm. am na boo xam boo ko déggee dina ah kii de tafaa la mm-hmm. xam nga parce que yàgg naa leen di dégg ñuy joué ñuy joué ci affaire yu bëri ba nga xam ne da ngay xam seen créneau lan la mais fii Sénégal lenn la gaay euh, lenn la gaay xeeb te mu nekk loo xam c'est important. dem si si grand chef jantal daf ko daan daf ko daan wax mooy am une carte d'identité musicale. ça veut dire. mooy musicien bu ci ne jëm fexe am cachet boo xam ne ça t'est propre. du ñëpp gaa ñoo ko mën a am mais si la majorité.

man kooku laaj soxla parce que xam nga dimbil fan nga koy soxla yow am na morceau yoo xam da nga naan fii kii fan laay jëlee baat bi nga nga ne ah bii nag laa soxla dimbil parce que léegi gars yi naan morceau dafa compliqué mu di ko expérience am ak humilité am joué que très simplement et ça marche fluide comprendre nga benn morceau boo xam gars yi dañu doon yaakaar mu dikk génn ay ay accord de neuvième accord de soixante quinze ak millième alors que affaire bu simple moo ko indi mu dikk en tant que mag di ko xool déglu morceau bi

day woo benn tantam bu nekk France yónnee am benn DX kooku yónnee ko DX mu ñëw papi jàngal ma marimba. c'est pas possible. jàngal ma marimba mais attends c'est grave yow jàngoo piano jàngoo la muy dóor jàngoo la muy kii jàngoo renversement yi jàngoo lii jàngoo lii jàngoo lii dikk naan marimba la ba gitang gitang gitang gitang gitang gitang ba pare bu ñu wax ngeen clavis la. mën na ne doo clavis nga mel. non nañu waxante dëgg. c'est vrai

euh, il faut faire de notre musique-là une, une seconde religion. parce que parce que gis nga man ragal na tëdd guddi te julli ma gée par exemple ma ko fàttee ba tëdd Duma ma fomu foo ma jógaat aussi ma xëdd nii ma ma ndogu nii toog ñu teg ataaya ba pare après ma dem tëddaat ni. non il faut ma liggéey ah. il faut ma jouer il faut ma jouer par exemple tok na pendant quelque temps gars yi gisuñu Supertoile gisuñu ma ci dara ne ça mais j'ai joué avec tous les groupes du Sénégal. tu sais pourquoi. mbër dafay footballeur entraîneurs de football. musicien des joué. il faut compétition. il faut compétition.